damay dooree rek wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci senegal ak li ñuy dund muy musiba ñi ngi déglu nag ñu ne dem maa ngi koy wax Jurbel ci ñaanu sunu sëriñ ba sëriñ alaaji Mamadou Tànjang di nuyu bu baax sëriñoo Omar ak njaboot gi yépp démb ca waxtaan wa maa ngi ko fay wax ma ne leen waxoon naa ko ci émission ne mbir day am lu mel ne mbas mi ñu déglu nangamalog yi nangamalog nangamalog nangamalog professeur tel docteur tel ministre de la santé nangam waaye ma ne mbas mi ba léegi déglooguñu bàkkaaralog yi ñi nga xam ne ay spécialiste lañ ci bàkkaar bàkkaar li muy jur ci musiba ak lan mooy tax musiba yemu jur teggeeku ba léegi ñooñu dégloo gunu leen feebar bi bi mu duggee ci réew meeg léegi dugg ci àdduna bi boroom xam-xam yëpp wax nañu ba seen xam-xam jeex fi mu toll ni làmbatu kese la ñuy def kese nag ka tudd professeur rek docteur rek ñëpp fanuy làmbatu waaye dëggi dëggi mbir yi waxuma li ci kaw mais dëggi dëggi mbir yi boo laajee bàkkaaraloog yi danañ la wax ne la sunu borom moy jëfëndiko yàllaam ji ci kaw ñi ko lànkal bëgg imposer loi mbon go xamne ni dafa wax ne na fi jóg mom sunu borom bu nu démé ci alquran suratu sajda ustaad alfa laaya ñaar fuk ak ben sunu borom mi ngi wax ne wala nudiqannahum من العذاب adabi دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون su demee ba nit ñi def bàkkaar danaa leen mosal mbugal gu ndaw gi balaa ma leen di mosal mbugal gu mag gi xëy na su mbugal gu ndaw gi dikkee ñu daw dellu ci man tuub balaa mbugal gi mbugal gu mag gi di dikk jalaale ni bi muy firi wala nudiqannahum min al adabi laddina daf ne mbugal gu ndaw gi ne yàllay mosal ñaar yi moo ciy gën a fes bekkoor ak feebar bekkoor ak feebar léegi laay pay bi muy jàng këru yëglekaay tirbin la dooree tirbin dem ca àll ba ne ah attention mbir ngay xew ndax baykat yi ji nañu seen gerte seen dugub ba noppi ma nga sax gisatuñu ndox ñoom ñëpp a nga toog ci nen moo ne démb de fa ñu nekk ci Jurbel sëriñ baa ngay joxe ñaan ngir baawu naan waaye laataa ñaan nga waxtaan nañu duut baaraam mbon gi ci réew mi ngóor jigéen gi jigéen góor gi njaaloo gi akay yàlla kenn du ko nax démb bi ñu ñaanee ba noppi dama jëlaat bi may yeggali sama waxtaan ne bu nu ignoree mbon gi métti yàlla ba tax mu teg ñu mbas mi ñu nekk fi naan dañuy ñaan yàlla pour mu teggil nu mbas gi dafay ignorer ñu nit sunu ñaan bu nu ignorer mbon gi indi mbas mi naan nañu ñaan lu fi teggi mbas mi sunu boroom ignorer sunu ñaan alquran a wax te waxam du dëñ ndax borom alquran mooy wax wax ju dul dëñ moo ne lu leen dal ci feebar ak bekkoor bàkkaar yee dama leen di duma nag dumaa leeni feebar febar bo xamne def na lu mat ñaari at legui tay mu mat ko te ba léegi amaguñu solution tak leen masque raxas leen loxo moytu leen daje bam mu ba legui même discours bu changé wul amaatul lu bes lu ñu indil tek ko suñ lox xana vaccin vacciner wu leen te ñi vacciner wu ñoy febar ñi vacciner wu ñoy faatu au lieu que ñu dem déglu bàkkaaraloo gi ñu ne attention لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها illaa fasha fihimu taaunu wal awjaau lati lam takun madat fi aslaafihim rasulullahi nee na bu demee ba faaxisha tasaaroo faaxisha mooy njaaloo ngóor jigéen moo ci gën a fes wala taqarabul fawaaxisha buñ ko tuddee mooy mbon ngoy def di ko nëbbu mooy lu mel ne njaaloo ngóor jigéen mu ne bu demee nag bañ koy fesal ci lay ñëwaatee léegi ci li ngeen doon commentaire ci ginnaaw mbon feek mi ngi nëbbu ka ko def la concerné digganteem ak boromam ak këm ko séqal ñaan ñay njaaloo tëju góor jigéen ya tëju ñoom la concerné yàlla du wàccee duma ci kaw xeet ndax gaa ñaa ngi njaaloo di ko nëbb waaye waxtu wu nu demee ba tàmbali ko affiché sunu borom dana wàccee ay dumaam tey senegal ñu ngi nii di jàmmat ndox naan tawagul <laughs> waaye yàlla ndox bu tawee indi jàmm loolu lañ ma te tiit moo tax ma dalee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun at mi weesu am na lu mu nu wan Kër Masaar ak yeneen i gox lu ñu gëj gis ci catastrophe bu fa am te ndox indi ko seetaan nañ télé bi nga gis la xew ci Allemagne. réew moo xam ne ni nee nañ góor jigéen léegi kenn du ne ko sa bët bi suufa nga ca. seetaanal télé bi nga gis la xew ca Belgique ak yeneen i réew yoo xam ne àdduna bépp tey man ko lancé yàlla défi ne ko yàlla doo yàlla ñun ñooy imposer sunu loi loo bañoon danañ ko dagaral yaa ne njaaloo dafa xaraam danañu joxe carte ba Sénégal jigéen ñi jaay seen bopp te kenn du wax ngóor jigéen gi waxuma la waxati ci mais ñëpp koy accepté far ñi ciy wax sax ñooy nekk en danger mais ñoom danañu am liberté gouvernement yi danañ leen nangul def leen programme ñu financé leen ngeen may góor jigéen di jàmm te yàlla tukkal ci àdduna alak ci xeet tey ñun ñëpp ñu toog di seetaan mais sunu borom bu intervenir ci meram moomu mu wàccee ko ci sunu kaw jarul ñuy jàmbat feebar yu bareeg dee gu bari nañ déglu bàkkaarologue yi ñu wax nu lan mooy jur musiba gis nga nag nii nga xamee ne noonu la ñuy promouvoir ngor jigéen beneen côté bi tamit loolu la ñuy promouvoir njaaloo ñaar yooyu ñoo fi nekk promouvoir ngóor jigéen ak promouvoir njaaloo ay boromi tur yu siiw ñu ngi promouvoir ngóor jigéen ñu leen di tuddee artiste ak lu nekk ñoo xam mais léegi série yi ñu ngi promouvoir njaaloo infidèle loo ci mënti dégg série la bu bon bu yées buy promouvoir njaaloo yàgg naa ko wax defoon naa ci émission du série dara du série dara jàngalewul tous lu dul mbon maa ko wax te jël naa samay responsabilité def naa ci émission yàgg naa ko dénoncé ba ci bind série ga xaw ma ibu gay xaw ma toog na naan ma waaw di ma jéem a jox ay leçon morale dafay jàngale nangam ak nàngam mais épisode ya jiitu woon ci série bi première saison bi lan lañ fi wane jigéen ju nekk ku faram bëgg koo wan ne ko waaw man ànduma nekkuma euh, ak euh, sama dama yor mbaax mais dama yor mbaax dafa doyul pour wax euh, ki nga àndal ne ko kat li nga bëgg mënu la nekk mais nax nga góor lekk nga xaalisam bëgg ko ne da nga yor mbaax laaj ko mouchoir mu jox la ko nga jël ko am ci taqal ñu wane ko ci caméra yi ñëpp di ko seetaan mais bi ñuy wane loolu dawuloon ci internet boobu mi ngi daw ci télé nit ñi di ko seetaan tey ñu ñuy fontoo di ñu këll-këllee jigéen ju wane la gën a foor ci moom nga xam ne kuy jigéen saaga na la njiit laayu jigéen nga jël ko mën ko filme bu buñ ko wane woon ci benn puquusu biir néeg ñett seetaan ko sax ñaaw na waxuma ñu naan ci internet la ñu ko dugal mais yooyu dafa war a ar promouvoir njaaloo la te du boobu kese yeneen série yëpp yàgg nañ koo dénoncé bërki dem mooy njaay lañ fi gis xaw ma paate seen xaw ma ak loolu mu fi joué woon ba génn moom di su justifié léegi yéen jàngale lan moo ci laaj da ngeen di war a dem tëdd ci kaw lal jigéen ak góor am leen lu ñu lu ñu mel la ñaari way dencante di mel ci seen biir ñéeg pour ngeen ne da ngeen di jàngale jàngalewu leen da ngeen di yàqaatee te loolu noonu la euh, ña nga xam ne ñoo ko doon dénoncé tey ba léegi ñoo nekk di ko dénoncé kër gii ñu nekk nii jot nañu benn plainte boo xam ne ñii sàmm jikko yi ñoom ñoo ko jot ci ay yenn yu doon jaar ci ay seen ci biir kër gi kon am na ñoo xam ne tooguñu ba tey benn séquence bu génn ñu ci coow mais bu jàlloon benn euh, film américain la bu bon bu jàll ci benn tele am na ñoo xam ne ci réew mi ñu ngi am seen bët xooluñu leneen lu yu mel noonu heure bu ñu ko gisee danañu ko dénoncé léegi nag ñaar yi nga xam ne mën na indi musiba muy njaaloo ngóor jigéen bu ci nekk ñu ngi ko jël banaliser ko banaliser ko te ñaar yooyu mooy jur musiba goo xam ne du bàyyi kenn bu yàllay duma ñëpp lay duma waale ba tax na kon nañu dellu ci yàlla nañu ragal yàlla ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk xam-xam ñu xam li bàkkaar di jur nañ ko wax nit ñi ñu tuub dellu ci yàlla sunu borom dane bi ma leen bëgg laallakum yarjiun la wax laallahum yarjiun yarjiuun fan ila allah kon laa xawla wala quwata illa billah laysa laha min duunillahi kaashifa ñëpp a wedam lal ya fees na ña ngay dolli oxygène amatuñu fu ñu dugali malaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laysa laha min duunillahi kaashifa yàlla doo nga ci man dara nag bu ñu toogee jël yàlla bàyyi ko ci ginnaaw acca ñu continuer nag ñëpp ñu gas suñ bàmmeel ñu toog di xaar yàlla yàlla mom ma fi nekkone ba legui mo yàlla bu ñëpp dajaloo won di def lu bon muy wacce musiba du ma sa changer loi mi non la man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi dalaamin lil abid neena na tooju ma kenn su ngeen defé lu bax am lu bax su ngeen defé lu bon am lu bon munu ñu def lu bon te lu bon du nu dal famal ya'mal misqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره te àdduna bi léegi ñëpp a manko ne non ñi def lu bon sax kenn waru leen a tudd ndax dañoo am puissance dañoo am doole lobby franc-maçon yi góor jigéen yi xam nga boo leen tuddee ñu pexeel leen léegi waxuma la dénoncer lu bon wala ba lu bon mais léegi dafa dem ba ñiy def lu bon dañuy wax ne léegi kenn waratu leen tudd nañ noppi bàyyi leen ñu am seen liberté bopp mais lii musiba bàyyi defkatu lu bon yi mooy bu yàlla duma ña defuloon lu bon lay tàmbalee wa taqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaas sunu borom nee na su may duma faalewu ma ko def ak ko defaloon sama yoon nekku ci ñëpp lay duma kat toog ne moo gën a sell dàq jaamu yàlla nekk ci ruqam yor kaamina ma kurusam ne man kat daray lu bon xaw ma la ca xew yàlla buy duma boo saaganul ca moom lay tàmbalee yàlla dara safu ko te bokk na ci liy tax buy duma duma ñëpp mooy lu bon lu fés ñëpp ne tekk noppi ci du ay kaamil a koy regle du ay dog a koy regle mais balaa kaamileeg do dog yi faawu dénoncé xoolal yeneen ci àlla lu démb rek maa ngi koy wax ci waxtaan wi suuratu suwaara mais bi bi ko ngóor jigéen yi waxee ne ko soo bawul dinu dénoncé la tëkku na na minal muxrajin danañ la génn danañ la génnee dëkk bi menacé ko dafa taxaw wax ak sunu borom ne maa ngi seede ne inni li amalikum minal qaaliin seen jëf ji bañ naa ko lool ba noppi soog di wax ne rabbi najjini wa ahli mimma yaamaluun yàlla musal ma maag sama njaboot ci li góor jigéen yi di def balaa ngaa toog di ñaan yàlla musal la da ngay def li nga war a def ba noppi yeneen ci yàlla du dane yàlla ngóor jigéen bañ naa ko soog di wax ne nag maag sama njaboot musal leen ma ci sunu borom nee na ma intervenir ma musal ko moom njabootam ba mu des soxnaam sa nga xam ne moo ko mënoon promouvoir góor jigéen ya di wax ne sama borom kër am na ay gani góor yàlla daf ko dumawaale te nag bari ci nit ñi su ma leen dumaa ngir ay bàkkaar ñu bari gëmuñu ko tey lii may wax am na ko toog fal naan noonu nañu dimbale su loolu loolu kese la da nga gis réew moo xam ne nii dépénaliser wuñ góor jigéen góor jigéen yi nekk fa te catastrophe mi ngi fay wàcc mais est-ce que njaaloo bi nekk fi lan moo wax ne góor jigéen rek indi musiba ci àdduna ci laay daanele mais nawet bu dikkaan lan lañ daan dégg ñun ñëpp ci palaa ñun ñu fi nekk ñëpp kenn doonewu ko xale dañuy aj ndënd yi aj nañ ndënd yi mais Sénégal léegi ana ndënd yi yëpp ajji nañ ko ñu ngi wax nii ay mbër yu war a bëree bër ki démb gannaaw suba xaw ma lan ak lan ak ñu xamul bu balaa yàgg léegi war nañoo seetaan nawet am po di am concert yi di am làmb yi di am ci période nawet ñu naan dañoo maral soxlam ndox ñu war a añ dënd yi bàyyi fecc tëj bois de nuit yi Cheikhul Hadji Abdoul Aziz jamono bi ndox manqué dafa yeble ne nañ dem wax Abdou Diouf nañu tëj bois de nuit yi balaa ñoo ñaan yàlla Abdou Diouf jël décret luy bois de nuit yi ñu tëj ko ñu ñaan yàlla mu taw ñëpp naan Abdou Diouf Alaaji Abdou ñaanam gaa tax mu taw mu ne Abdou Diouf amul ab Abdou Abdoul Aziz amul ndox bu bëggee ndox day yebal paap taal mu dem duyal ko satala gi mu jàpp kon amul ndox mu muy wàccee ni lépp nañ dellu ci yàlla sant ko ndax biñ jaaxlee dañ ko ñaan ndox mi ñëw kon moo ko indi waa tey kan mooy taxaw demandé président Macky Sall ne ko nañ arrêté làmb ji nañ tëj boîte de nuit yi nañ arrêté caaxaan yi ci dëkk bi pour mën a ñaan yàlla mais ñun ñëpp ñu toog rek di fooyee suñu xel yi sàq mi te sexoo dara nax sa bopp la bu nu nax suñu bopp dañuy sàq ta te dara feebar bii dee gii ñàkkum ndox mii yàlla dong nga ci man dara kenn mënatu ci dara ñëpp wedam nañ pexe yéen waxoon ñëpp def nañ ko raxas nañu loxo ba suñ suñu loxoy fut takk nañu masque ba ñu ñëpp am nañ problème mu nooy def nañ ko ba vacciné na lépp def nañ ko te ba tey mi ngi nii. te variant bi nii si xale yi la mënee de delta bi moom xale yi ngi. dama ne waxuma delta mais air France ak air Maroc yëpp ñëw. <laughs> du yem si delta kese bu ñu bu ñu bu ñu delluwul ci yàlla. nañu tuub dellu ci yàlla te ñu te ñu bàyyi xel ne yàlla ba léegi mooy yàlla. keneen nekk fi ku dul yàlla ñu ba ci xel. yàlla ñu yàlla defal sutura yàlla yàlla wàccee ndox te muy ndoxum jàmm man jàmbatuma yéex a taw de mais lu taw di indi lay jàmbat ci période bii ñu nekk nii mm-hmm. uh,